asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 30 août 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi mu mel ni ki nag tey sunu la ak di sunu mi nga xam ne mooy roi des arènes Balla Gaye numéro 2 ex roi des arènes Eumeu Sène ex roi des arènes Ama bi nee na fi nii day amul benn grand combat boo xam ne actuellement jamono jii nuy wax monté nañ ko te fi mu nii kase yu mag yi nga xam ne moom la ñuy réclamer tamit dafa mel ni tax na loolu mënta am waaye leneen loo xam ne tamit jàpp ne moo tax loolu mënatu la am mooy maanaam daa jàpp ne promoteur yi fi nii day ndax la la ñu yoroon bopp est ce que yorati nañ ko ba mën a moo tax nag yëglikaay bi ne jàppal daa mel ni fi mu nekk nii day asamaan sa nag mu ngay wàcc kaw mbër yi nga xam ne ñoom la ñu duppee ay VIP maanaam mbër yu mag yi nga xam ne ñooy fayeku kase yu mag a mag a mag yëglikaay biir sunu làmb moo xëy tey ñëw di ñu wax ki noonu mu mel ni ki fi mu nekk nii daal jàppal boo bëggee dégg dëgg moom mbir ma na mu meloon melatu ni bu dee lig Nicolas la wala Pape Abdou Fall ne nañ nag ñoom fi mu nekk nii xamuñu ñu cibleem jàppal ñoom espoir yi la ñu gën a ciblé te itam loolu tey suñu làmb daal moo xëy ñëw di ñu wax lu mel ni ki noonu waaye yëglikaay bi tamit am na leneen loo xam na xëy na tey def ci ab jàngat mu mel ni ki nag saison bi nga xam ne moo jeex di 2018 jàpp 2019 bi day 1300 1320 litres ñoom ñoo amoon licence ci biir 1300 yooyu nag yëglikaay bi ne na 1200 ñoo ci jot a ci géew bi bëree mu mel ni ki daal kon ñi amul licence ak ñi bëree daa mel ni kon tóoba xaw naa bëri ñi bëriwul taxut ñu bëri noonu wala bu ñuy bëri ba bëri boog du ñu passé 300 sunu làmb xëy tey wax lu mel ni ki noonu waaye ci biir ñooñu nga xam ne ñoom ñoo bëre nag yëglekaay bi am na ci ñoo xam ne day toll nañ ci juróom-ñett fukki mbër yoo xam ne day bëre nañ lu toll ci ñaari combat soixante litres yoo xam ne ku ci nekk bëre na ñaari komba yëglekaay bi ne na ko ci jëkk muy Modou mi nga xam ne léegi mooy roi des arènes Kairou Ngor numéro deux Thiatou Yarakh Samba Ndeleng deux ak ki nga xam ne mooy Siga Liss Ndiago Agogo Google Mateur Sunjata Raskas Tidiane Fayda Bébé Bismi Caatu Ngéwél Ada Fass ak ki nga xam ne mooy sang Benteñe Giro Seras Candum de Caatu Rëbës Koña de Soq de ak ki nga xam ne mooy Jaxaay ak ki nga xam ne mooy Aboy Poul bu Daaru Lay Brisli ah, Lay Brisli moom tamit ca la bokk ak ki nga xam ne mooy cinq heures du matin Milkuso tamit ca loola la bokk ak Njargaloo Ama bu Malika Double Tyson Boy Waalo ak ki nga xam ne nii moom mooy Gorofil ak Salmon Boy Diouf mbayte numéro 2 Dofu Dias Omar Fall 2 Diaw 2 John Kara ak ki nga xam ne nii moom moo di jàppal yëglikaay bi nee na moom moo di caatu Daouda Fall ak ki nga xam ne moo di Assane Modlo fils de Sallo tamit ca bokk ak ki nga xam ne mooy trompeur numéro 2 Bébé de 2 ak ki nga xam ne moo di Njaaytin alliance Biram tamit ca la bokk Bulldozer Kewel carrière ak ki nga xam ne moo di qualifié numéro 2 tamit ca la bokk ak ki nga xam ne mooy Sa ak ki nga xam ne nii moom moo di ca ki nga xam ne nii moom moo di Sa bu caaroy sur mer Maxi Crisi tamit mu nga ca biir général 2 ak ki nga xam ne mooy Saara moom tamit ca mbir ma ca la bokk. ki nga xam ne moom moo di carrière qualifié numéro 2 Sa Thiès bu caaroy sur mer ak ki nga xam ne moo di Maxi Crisi général 2 Saara Boy Dakar ak du action mu mel ni ki nag. mbër yooyu moom li leer ba leer ku ci ne bëri nga ñaari combat waaye booy jaxaw tamit ca la bokk Calcio ak ki nga xam ne mooy Alliance Baldé Pape Laye mu mel ni ki nag mbër yooyu yëpp daal ku ci ne bëri nga lu toll ci ñaari combat ci saison bi nga xam ne moo jeex am na ci juróom-ñeenti mbër yoo xam ne ñoom ku ci nekk bëri nga li nga xam ne mooy ñetti combat yëglikaay bi ba tey ñëw ci ñooñu ka nga xam ne nii nag moom moo ci njëkk moom mooy. caatu montagne moom am na ñetti combat kii nga xam ne nii mooy Cheikh Super jamono tamit lu mel noonu la def mbay simpi ca la bokk ak ki nga xam ne nii moo di soq de bu Kër Massar mbooloo ak ki nga xam ne nii mooy Aliou Fat Fat ak ki nga xam ne moom moo di ki nga xam ne mooy soose maane numéro de moom tamit ca la bokk ak ki nga xam ne mooy Cheikh Kayma petit ba ak ki nga xam ne nii moom moo di yaawu jàll mu mel ni ki nag mbër yooyu yëpp daal ku ci nekk bëri nga lu ci ñetti combat ci saison bi nga xam ne moom la ñu génne waaye tanoor ya tamit boo xoolee yëglikaay bi ne la jàppal juróomi ténor ñoo jot a wàcc ci li nga xam ne moo di làmb ji yëglikaay bi nee na ki nga xam ne nii moo ci njëkk moo di moo loo bëri na li nga xam ne nii moom mooy ci ténor yi Balla Gaye numéro de ca la bokk Eumeu Sène Lac de Guiers 2 Boy Niang mu mel ni ki daal saison bi kon noonu la ko yëglikaay bi ñëwee tey wax ñu ko ba tey ci ëpp gëstoom boo xam ne mu ngi koy def waaye am na ñoo xam ne nii moom bu yenn VIP yi bëree seen ab écrit kenn bëriwu fa ci VIP muy écrit fas moo tax yëglikaay bi nag xam ne fi mu nekk nii day ñu ngi ci mbirum chômage boo xam ne nii bu méttee métti la jëm ci VIP yi waaye yemuñu ca la tamit wàllum lu jëm ci wàllum couronne écrit ba mësu koo am mu mel ni ki Fass fi mu nekk nii day daanu dëgg dëgg dëgg suñu làmb nee na moom lañu def yëglikaay bi tey moo xëy ñëw cib gëstu jëmale ko ba tey ci fii nga xam ne nii moom moo di ci écrit Fass kii moom mu ngi bëggaat mbërëm mi jogaat taxaw muy ki nga xam ne moo di maam lees moo tax nag mu ngi koy préparé fi mu nekk nii bu baax a baax a baax muy Moussa jum digganteem ak maam lees daal mu mel ni entraîneur ba fi mu nekk nii la mu fas yéene mooy préparé ko ngir saison bii ñu jëm mu mën caa wane boppam bu baax a baax a baax waaye leneen loo xam ne yëglikaay bi xëy na ca ñëw wax ñu ko muy kii nga xam ne moo di Bamba Faye Bamba Faye nag mel ni ki nag dellusiwaat na waaye bu mu dikkee nag ab ab combat combat la ñu andil muy combat espoir Boy Balde ak Gorgui Étudiant daal dafa mel ni Bamba Faye taxawal na boobu combat yëglikaay bi moo xëy ñëw di ñu wax lu mel ni ki loolu leneen loo xam ne tamit gis nañ ko ci yëglikaay bii nga xam ne moom moo di ci sunu làmb jàppal yëglikaay bi daal war nañu kii nga xam ne nii moom moo di Modou Lo mu jël ñaari butéel téendoo ko di ko sotteendoo boppam ca kawam yëglikaay bi ñëw ci tey waaye dañuy dem fa nga xam ne moo di ca Leewtoo point net mu mel ni ki nag Jeux africains yi nga xam ne mu ngay amee ca Maroc day Leewtoo point net mu ngi ñuy xamal ne démb nag ki nga xam ne moo di Anta Samb moom gañe na fa li nga xam ne mooy médaille d'argent ginnaaw 2015 ba nga xamee ne nag médaille bi mu amoon moo doon bronze mu mel ni ki nag def na ay jéego avancé am na bii yoon nag arsa mu a ni ki tey ci àjjuma ji nag jàppal góor ña ñoom ñooy wàcc lii nga xam ne moo di géew ba jongante ca Sud Africain yi nga xam ne ca Maroc la ñu koy tëggee waaye leneen loo xam ne nag dañ fay jeexale sunu làmb ñëw ci tey mooy ñamu jàppee ñu nekk première division ñoom la ñu woon ci xëtam wu mujj Modou Lo Balla Gaye Eumeu Sène Bombardier waaye loo ci mën a dégg première division dixième division daal li ma xam moom la waaye di def na ca boole la bu yàggee xëy na mën ngaa dem fa nga xam ne moo di ca première division ba woykat baa ko waxoon Youssou Ndour taala noonu na booy jaay Dakar sax na ci am fulla wala leneen loola ca fekk yaa ko yóbbee sa bopp taala kon booy jaayati Dakar na nga ànd ak fulla wala ma ñam jeexal ko balu na ñépp ak tey la ajjuma bis bu sell la ci bis yi moo ko Leewtoo TV leen gërëm leen nuyu leen ngeen àndoon si revue de l'arène bi nu ànd ak yéen si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay Ndeye Coumba Fall di nuy internetu Leewtoo TV yëpp fu ñu mën a nekk di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko saxu ci ñoom ah, di balu ñëpp ak tey si àjjuma ji waaw di wax alhamdulilah rek di santaat yàlla bu baax a baax di julli ci sangu-sang yi nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di nuyu ñëpp. Babacar loolu am na solo Babacar nag ñu ñëw nag si sunu laam sunu dafa xëy si VIP bi si eh, VIP ñi ngi laaj ne amateurs yi est saison bi di ubbi daañu am ay combat yu mag parce que daal xeeñagul neex parce que intersaison nag nan faral taxawal ay combat jëm euh, ouverture de saison mais ba léegi benn grand combat taxawagul promoteur yi kenn gis leen ne ñu amatuñu xaalis VIP yi xaalis lu ñu laaj euh, dafa bëree Babacar. waaw loolu day moom lu doy doy waar la te duñ ko souhaité parce que tam heure bi daan des fois daan na fekk sax ñu ne la combat diw ak diw taxaw na di combat bu mag yaa ngi dégg loolu nag boo gisee dafa mel ni xaw na ralentir lu wàññeeku la loolu nag comme li ñu si mën a wax rek mooy xëy na li nga xam ne nii wala ñi nga xam ne ñooy promoteurs yi tëgg làmb ji di joxe seen xaalis. ñi leen daan dimbali xëy na ñu leen di tuddee ay sponsor xëy na loolu moom moo fi nekkatul comme ñu ko daan gisee yaa ngi dégg léegi xëy na am na sponsor yu fi ne mais est-ce que am nañ doole benn bi nga xam ne mën nañ dugal benn xaas bi ci benn affiche wala ci ay affiche pour promoteur yu mën a tëgg yenn affiche yu mag yi wala boog bu fekkente ne même bu lool amul nag ba pare ñu fayeku la ñu di la laaj yenn kase yi tamit yaakaar naa pour nga taxawal combat rawatina ci intersaison dina a jafe trop trop trop mu mel ni nag kon fi mu nekk nii daal li war a am mooy muy promoteur bi muy mbër mi ak seen staff yi ñoom ku ci ne jéem dawal comparaison seen diggante ñu xam ne que rek mbir mu ne ah na mu dikkee nun nga koy jéem a gérer parce que am na loo xam ne su ñu xamee ne lii mënta nekk itam képp ku force ba def ko ëllëg mën na laa jural ay jafe-jafe te ñun bu ñu sañoon képp lu waaye di dugg lu ne boo cay dugg ci bismillah rahmaani rahim boo cay génn da nga cay génn ak alhamdulilah rabbil alamin nga xam ne lenn lu nga xam ne nii luy sonal nit la wala luy indil ay jafe du la ci fekk moo tax ba nga xam ne daal fi mu nekk nii kon mbër yi nañu xoolaat taxawaay bi promoteurs yi tamit yi nga xam ne nii li ñu man ah ñu jéem koo def mais lépp itam nekk ci loo xam ne daal ëllëg buñ ci génnee ku ne da nga ciy am satisfaction daal. Babacar lu tax ren lu war a euh, accentuer wu si VIP yi parce que am na ay mbër yoo xam ne ñu ngi fi mun nañu euh, neexal ay journée mais pourquoi ay promoteurs yi jël seen choix ya porté ko si VIP te VIP yi soo limee diis si la ñuy yem te yaa na wax naan pata sama gënal pomme de terre ku si tëj sa avocat neexul est-ce que mun leen fi bàyyi tamit seeti leneen waaw pata sama gënal ñam dañ ne kuñ ci tëj sa avocat baaxul de waaw non xam nga VIP bu ñu nee VIP si lamb mbër yu mag yi ci lamb lañ bokk yaa ngi dégg loolu moom ak ñu wax ko ak ñu bañ ko wax mooy promoteur buy tëgg lamb bi tamit yaa ngi ñaan yàlla ëllëg nga tëgg Modou Lo wala Balla Gaye wala Eumeu Sène wala Bombardier wala Gris Bordeaux wala Ama Baldé wala Lac de Guiers wala Boy Niang wala sax Tapha Tine ak ñeneen wala ñoom Gouye Gui ak Sa ku ci ne am nga ñaa ngi ñaan yàlla ëllëg nga tëgg mbër yooyu parce que li tax mooy ñooñ bu bëriwulee tamit ci saison defe naa saison ba du saf neex te ren defe naa loolu ñu bëri jàmbat nañ ko ci seen année balance yu ñu def ñoom Bombardier ak ay Gris Bordeaux ay Ama bari bëri nañu ak ñoom tafaatin kon ñooñu defe naa ba ci ñoom guy gi bi ñu defee année balance du gënal amateur yi yaa ngi dégg xëy na moo tax ba nga xam ne euh, du question nañ tëgg euh, li nga xam ne ñooy espoir yi espoir yi moom ñu ngi leen di tëgg mais nag làmb tamit dañ ciy soxla ay affiches yu mag ndax li tax loolu day maanaam li muy def ci làmb dafay bëri ndax dalay leer ne ren boo xoolee affiche su Balla Gaye numéro 2 ak Modou Lo la la mu deree drainer ci monde ci ay doomu aadama ah yaa ngi dégg ak ci communication ak ci ñi nga xam ne ñooy acteuru làmb yi ak fa ko fa mu dem ci wàllu médiatisation combat bu toll noonu rek ak mbër yu mel noonu ñoo ko fa mën a yóbbu donte que nag euh, espoir yi ci làmb lañ bokk ndax ñoom ñooñu tey ñuy ñuy tudd noonu ay espoir la ñu woon yaa ngi dégg mais nag du tere que ni dañuy ñaanal rek promoteur yi waxuñu leen ñu tëgg VIP kese parce que loolu mënul nekk da ngay tëgg ñu ndaw ñi ñi tëgg ñi ñi tëgg ñi ku nekk def li nga man sëñ Mourou ñaa gis nga ne muy promouvoir les les espoirs di leen tëgg tout le temps mu ngi leen di tëgg tëgg bu bare bare bari ñeneen tamit mu ngi tëgg espoir yi même promoteur yu mag sax dañuy tëgg espoir mais nag dafa fekk naka nag mbir yu mag yi tamit dañ cee bokk dañoo war di bëre parce que ñoom euh, bu ñu bëree day tax làmb gën a neex xam nga ne kenn ñaanut yàlla dugg saison ba saison ba jeex te gisoo mbir yu mag yooyu ñu wàcc ci géew bi bëree loolu gënalul kenn waaw Babacar loolu am na solo Babacar comme li nga wax léegi ne espoir yu bëri na leen war di tëgg comme ni sëñ moo ñaañ def looloo war sax tey seen euh, euh, sunu làmb ñëw dafa euh, benn benn jàngat ne cent vingt 1320 licenciés noo am saison bi nu génn mais si 1320 yooyu 1200 yi ñëpp bëri nañu Babacar. waaw loolu daal mën nañ ne taux bu baax la parce que bu dee 1320 ñoom ñoo amoon licence 1200 1000 1200 yi ñoo si bëri loolu yaakaar naa lu baax la kon ña ci def année blanche boo ko calculer yaakaar naa est-ce que du si 300 lay war a toll wala affaire yi et voilà kon loolu mën nañ ne baax na bu ñu sañoon nag kenn du def année blanche bu ñu sañoon ku am sa licence apte pour bëri da ngay am combat mais dafa fekk ne daanu moo dajul suuf comme li olof yi di wax di nga am sa licence yàlla dogal doo bëree mais nag olof dane bu yoon euh, jeexul waaxusul du jeex yaa ngi dégg kon loolu du ñu mën a def lu dul salier ñi nga xam ne nii ba tayaat rek mooy promoteurs yi parce que lu mu métti métti ñu ngi jéem pour di jéem a tëgg te lool bu ko nit dee def te xaalisam lay génne dafa jar di encourager di ko ñaanal mbër yi bëre tamit ah ñu wax ne ñoom seen wërsëg moo ci nekkoon ñi nga xam ne bëriwuñ tamit xëy na seen wërsëg moo ci nekkul ñu xaaraat rek waaw parce que li jara ñaan daal mooy wér-gu-yaram gudd fan ak di fekke tey tal su loolu amee pour man lépp war na mën a nekk daal. Babacar nu jógee nag si licence yeeg CNG dem nag si écurie Fass nee daal écurie li lu ñu koy waxee écurie Fass s'effondre maanaam daa wàcc na ba si suuf comme ni ko xale yi di waxee mbër yi euh, amuñu couronne mbër écurie yëpp pratiquement am dégg nañu roi des arènes VIP yi bëri wunu maanaam daal écurie Fass daal dara doxatu fa. deeteen bi aussi muy Moustapha Gueye critiqué. waaw loolu moom lu doy doy waar si écrit boo nga xam ne nii ah mën nañ ne mooy écrit bu njëkk ci Sénégal tey bu ñu demee ba nga xam ne nii seen ay VIP wala seen mbër yu mag saison lëm mënuñu cee bëree ñu ne déet ne waay couronne roi moom mosuñu ko am terewul nag écrit parce que dama naan am couronne du force li am solo mooy di bokk di compétir tey am ay résultats loolu moo ëpp solo xëy na loolu nag gisuñu ko ren ci ñoom.

DTR bi muy euh, Moustapha Guèye dañ ko fi sujet VIP yi bëri woonu Babacar. waaw doy na waar wax dëgg yàlla ni muy doxee actuellement xam naa ne euh, nekkul lu nga xam nii pour man. neex na na neexul warta neex Mbaye Guèye et puis warta neex ñi nga xam ne seen ay supporters ah, euh, moo tëddee noonu dafay wàcc ba nga yaakaar ne sax est-ce que dootina mën a yéeg mais buñ ko liggéeyaatee mën naa mu yéegaat parce que boo xoolee ren seen mbir yu mag mën amuñu ay combat yaa ngi dégg beneen bi ci des directeur seen directeur technique di Tafa Gueye tamit gis nañ critique yu bëri dal ci koom su saison bii jeex yaa ngi dégg leneen la ca des mooy couronne roi des arènes mosuñu mosuñu roi des arènes mais li ëpp importance mooy di bokk di compétir tey def ay résultats yu positif loolu moo gën a ëpp sax njariñ parce que xëy na bu fekkente ne sax mbër mi moom am tey exemple Gris doo nekk un roi nekk roi des arènes ba pare te écrit bi yëpp di daanu loolu tamit amul njariñ mais li am njariñ mooy ngeen di exister te résultats yi yu baax yi di gën yi nga xam ne nii mooy yeneen yi parce que euh, mënoon tamit sama résultat lépp day positif xam ne daal comme ni ñu ko xam ne day boo xam ne nii créé na ay champion champion champion moom mu écrit face loolu déjà mérite la mais nag li ñu war a xam mooy li nga xam ne ni daal moom la ñu séq te kenn ku ci ne mënoo jël sa partie dem ak moom loolu la ñuy jéem a toog ñoom ñu ko séq moo xam dirigeant ya la mbër ya la supporter ya ñoom ñu toog jéem a waxtaan xool nu ñuy doxalewaate pour que ñu mën a dox beneen doxin bu gën bii ñuy doxee loolu tamit la ñuy wax écrit yëpp mais di ko wax sax organisme yëpp parce que mbir moomu mën a doon rek waxtaan waxante dëgg te yàlla tax mooy tax mu teel maanaam mu dem na mu ñu yaakaar ne noonu la war a demee parce que Ndeye Coumba Fall benn mag doon na ma wax ne boo ma teelee wax dëgg wala ma teel laa wax dëgg di di di ma noppal ma noppal la mais nag mbir moom li li li li li yàq daal mooy ànd di jaayante comme ni ko suñ papa Doudou Seck di waxe tàggoo di jëwanti loolu mais Babacar est-ce que écurie bi euh, est-ce que loolu dina fa amati parce que yaa nga dégg nëpp écurie Fass chaque année ñu def nëpp maanaam def réunion waxante ku nekk wax lu la metti mais du tey saison su su ubbee problème yi ñëwaat Babacar waaw ndëpp bi de yàgg nañ koy wax chaque année ñu ne écurie Fass ndëpp na ndëpp na mais xëy na ndëpp xëy na rab ba ñuy woo ñëwagul xam nga booy ndëppite bu fekkee da ngaa war a bu fekkee rab dugub la lay laaj nga ndëppeeb ceeb yaakaar naa du sotti wala nag waaw bu la laajee mboq tam nga indi basi du sotti mu laaj la nag nga indil bëy tamit du sotti kon pour man balaa ñoo dugg ci ndëpp mi war nañoo gëstu ba xam rab bi moom lu mu laaj bu ko defee xëy na bu ñu ndëppee ndëpp ma mën naa jàpp mais ñu leen di nuyu encore une fois di leen ziar rawatina le président Abass Ndoye ak membre ah, leen di nuyu di leen ziar ñoom Moussa Gueye ñoom Bouba Thiaw Malick Gueye ñoom ñëpp waaw parce que tamit écrit bu nga xam ne bu fi yàgg la dañuy ñaan yàlla rek écrit yëpp di exister parce que loolu mooy tax làmb mën a dund ko am na solo Babacar ñu jógee nag si bëree dóor bi dem nag euh, si si Jeux africains yi nga xam ne mooy moo moo am Maroc li ñuy wax ni si Leewtoo point net ne Anta Samb kii nga xam ne mooy Anta Samb si ñeen si ñeenti jigéen yi nga xam ñoom noo tiiree démb moom dong moo si am moo si am médaille Babacar médaille d' argent. waaw kon dañuy encouragé jigéen ñooñu tamit di leen wax ne ñoo ngi leen di encouragé parce que compétir bañ boole la ci doomu Afrique yëpp ngay dem di jongante ji loolu déjà mérite la ah nga ñàkk nag. dañ lay fili xamal ne sport noonu la ka am tam médaille d'argent muy Anta Samb tamit ñu félicité ko ndax su ma juum ba mu fay mujjee 2015 naa médaille de bronze la fa jëlee woon kon yaakaar naa def na performance waaw boo jógee ci përëm dem ci xaalis kon ëllëg mën nañoo am yaakaar mu dem ci or kon tamit loolu lañ koy di ko moom Anta Samb mais di félicité tamit membre staff bi nga xam ne ñoo yore équipe boobu nekk Maroc ci Jeux africains ñaanal tey defe naa góor ñi ñoo war a wàcc tey waaw ñoom tamit yéen ñu ngi leen di ñaanal ñoom Adama Adama Diatta ñu leen di ñaanal tamit ñoom tey yàlla na leen yàlla dimbali bañ gañe am ay médaille door waaw Babacar loolu am na solo si kàddu yooyu leen di tàggoo di jox dig daje lundi incha allah mais balaa boobu muy nuyu sama yaay Mère Sow di nuyu Mohamed Diouf sama doom di nuyu Astandine depuis Italie chérie Khadija Diallo depuis unité 26. mais nag tey Babacar dafa am koo xam day day fête anniversaire ku sore man si lool muy Dadi Gueye xam naa taal dina ree ak ñoom ñoom yàgg Dadi Gueye mooy fête joyeux anniversaire sama naaru góor boobu naa ko dundal dundal loo dund doyum ku baax ku ku am yërmande si man yow daal dama lay wax daal lépp loo bëgg rek mooy loolu. <laughs> am na solo date yi ñu koy souhaité hmm? tey ci 30 août bi yàlla na yàgg fête anniversaire am boobu. maa ngi ko anticipé le premier. ba tey lépp baax na loo waajalul doo ko def loo gis ne dañ koy waajal waajal a gën ci lépp lu mu mën a doon kon date mu ngi waajal tey la 30 suba la premier du wala gannaaw suba voilà dimanche ba tey day gën a neex rek kon date yi di la ñaanal jàmm mais di la wax na tamit. waaw loo yërmande ji am na solo lépp am na solo waaye soxla nañu effort bi yokkal affaire yi gënal ñëw ndax nag ñun jàkka ji lañ bëgg a dem waaw dañoo bëgg a dem jàkka ja dat yi di la nuyu di la ziar di wax ne que moom olof a ko wax rek xer wu téeb sàkket da cay daru waaw ñaar bu ñu bëggantee nañu ànd yërëmante dat yi nday ku mbaag may wax waaye du mën a ñàkk faw ñu sànni ko ci di nuyu internet yi di leen ziar di leen ñaanal jàmm di wax ne que bu dul ñoom mbir yi du sotti ñi ñuy suivre à travers le monde yaa ngi dégg ku ci fu ci waay man a nekk rek nuyu nañ la Kempes maa ngi koy nuyu doomu ndoyu yàgg maar la ca Paris la France maa nuyu bu baax a baax a baax Serigne Amy Sylla nuyu naa ko mais tamit di nuyu Papa Guèye Papa Guèye ca ministère des finance montre bi duma ma ko tàyyi di ko wane moo ma ko jox te xaalis bu bëri la ko lay jar waaye ki nga xam ne ni mooy sëñ Dame Jonn dëkk parcelle vraiment di ku baax gis nga li ma sol nii mu jënd tis bi jox ma ko ne ma ñawlul kon Papa Gueye tamit mention spéciale ñëpp ñi nga xam ne daal safoon nañ ñu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. yaa ngi dégg parce que àddina loolu fi nekk ren day kumba kii danaan lii kii ne lee keneen la waaye pour man ñu ñëpp ay doomu aadama la te kenn bañul kenn xëy nit ki mën nga koo réere waaye mbañante yaakaar na war warta mën a am kon dañuy balu ñëpp ak taala ak yàgg ñoo ñooñ fa laay mujjee di nuyu ñëpp di ziar ñëpp ñoom xadiroo si Njaay ñoom tuuti yaay Sarr ñoom xam nga ndongo Fall ca Italie ñoom Baye Sall Paris kër su jamono du ma ko fàtte xam képp ku ñuy suivre bu ñu limee dinañ juum waaye encore une fois rek di nuyu war sama waa dëkk waa ak yaay sama waa mbokki bawal yooyu di ñaan nawet bi nga xam ne moom lañ dugg ni ñu ko commencé bismillah rahmaani rahim yàlla na jeex ci alhamdulillahi rabbil alamin luñ ci bay yàlla def ñu muurloo ko mais di nuyu tamit waa sunu làmb maa ngi leen nuyu bu baax a baax liggéey bi metti na mais nag noonu la liggéey mënta ñàkk ànd ak ay ndax démb ñi ma woo bëri na ci niñ doon defee division yi ñoom démbale maa ngi leen di nuyu Boubacar Niang Abou Ndour Iba Kane ak seen waaw abu abu mu ngi record maa ngi koy nuyu bu baax a baax mu ngi record di nuyu ñëpp daal di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu nag sama ñaari njool yi ci ginnaaw borom couleur yi bëri Taala Njaay ak yàggum Cheikh Béthio Thioune moom Serigne Saliou maa ngi koy nuyu waaye di nuyu Taala mu le bàyyi Faal bi moom xam nga la yaroo tey nag maa ko solal <laughs> waaw daa tawte noo tawte daa baax ndox a fi gën yow